aca ndeysaan arbitre sifflé na combat choc Gandia Fama daw na jël ko waaye boros génne ko ndeysaan combat choc de la soirée bi ci Kampama Ngeko diggante boros El Bandi ak Gandia Fama ndeysaan boros moo ñu woon gannaaw Gandia Fama la ñu jàkkaar lool Boros sol na ko naaf daw na ak moom eh eh Boros daan na Gandia Fama Boros daan na Gandia Fama eh eh Boros daan na Gandia Fama ndeysaan Gandia jaaxle na